<laughs> billaay wallaay sénégalais yi ci kanam tuuti da ngeen xam ne lu dul jàmm-jàmm ko gën xam ngeen ne terroriste yi moom joox nañu ba fees dell ci biir réew mi léegi ci kanam tuuti sénégalais yi nga xam ne ñooy dëgër bopp ak di manifester ñoom ñooy mujjee di woote jàmm incha allahu xool leen jëmm ji ngeen jàkkaarlool xool arme bi nga xam ne tey moom la yor ci loxoom. xam ngeen ne kii du sénégalais benn ñaar mooy ab terroriste la ñett mooy jegewuta sax moom ay xeetu manifestation yii leen tax a jóg moom taxu koo jóg ñeenteel ba mooy kii mi ngi firndeel ne kon yow miy manifesté wu mbooloo mi nga xam ne moom nga àndal jàppal ne ki ci ginnaaw chaque minit mar na la dóor bal nga dee ngir ñu jiiñ ko police ak gendarmerie sénégalais yi nañu yewu te ànd ak suñu xel ñii manifestation taxu leen jóg boom askan wi rey leen jël seen alal moo leen tax a jóg mbokk yi toog leen seen kër te ngeen ñaaw njortu te xam ne réew mi dañ koo rax képp ku génn bañ dóor la balit perte ngay def lii firnde la ci kii kenn xamu ko mi ngi kaalaw te pourtant mi ngi rax ci biir manifestation yi mel ne ñoom la àndal yeewu leen <laughs> billaay wallaay sénégalais yi ci kanam tuuti da ngeen xam ne lu dul jàmm jàmm ko gën xam ngeen ne terroriste yi moom joox nañu ba fees dell ci biir réew mi léegi ci kanam tuuti Sénégal yi nga xam ne ñooy dëgër bopp ak di manifesté wu ñoom ñooy mujje di woote jàmm incha allahu xool leen jëmm ji ngeen jàkkaarlool xool armu bi nga xam ne tey moom la yor ci loxoom xam ngeen ne kii du sénégalais benn ñaar mooy ab terroriste la ñatt mooy jege wuta sax moom ay xeetu manifestation yi leen tax a jóg moom taxu koo jóg ñeenteel ba mooy kii mi ngi firndeel ne kon yow mii manifesté wu mbooloo mi nga xam ne moom nga àndal jàppal ne ki ci ginnaaw chaque minute mar na la dóor bal nga dee ngir ñu jiiñ ko police ak gendarmerie sénégalais yi nañu yewu te ànd ak suñu xel ñii manifestation taxu leen jóg boom askan wi ray leen jël seen alal moo leen tax a mbokk yi toog leen seen kër te ngeen ñaaw njortu te xam ne réew mi dañ koo rax képp ku génn bañ dóor la balit perte ngay def lii firnde la ci kii kenn xamu ko mi ngi kaalaw te pourtant mi ngi rax ci biir manifestation yi mel na ñoom la àndal yeewu leen